léegi nag Baye Allé na dem noppalu dallu <clears throat> il est toujours internet à l'hôpital donc euh, ci li ñu wax et euh, bon malheureusement euh, la euh, nu mu tuddati la la CAP mu ngi woote pour que ñu dindi charge yëpp yi ñu ko teg pour que mu mën a fonctionner comme il faut <clears throat> te passeport Euh, chaque euh, début mois dafa war a présenter wu devant le juge. Mm -hmm. et cetera tout cela est très contraignant encore que euh, il y a je pense quatre mesures yu ñu wax euh, yoo xam ni daal concerné na ko waroo ci wax ci à un certain niveau et cetera mais une chose est certaine le vrai combat au-delà de sa libération c'est que on ne peut pas refuser à quelqu'un un professionnel de l'information muy wax. Mhm. bàyyi àll noppi loolu mënut a nekk da naan kay. moom mu xool nan la kaa doxalee à un certain niveau mun nañ comprendre loolu mais noppi moom mënuta ne ay contrôle judiciaire pour bañ nga wax loolu laal ñu ne la doo ci wax loolu ki ñu ne la non bu ci wax loolu ki loolu c'est impossible et ça la presse ne va pas l'accepter mhm. moo tax euh, les gens vont vont vont suivre le cours erreur bi ñu defoon bu jëkk ba Mamy Samb mhm. mooy libéré nañ ko rek ñëpp bàyyeeku mhm. loolu c'est fini les gens continuer la lutte parce que principe là on ne Euh, lu ay avancé ñu am saa waay depuis plus de vingt années. Mm-hmm. après ñu ñëw tey deux mille vingt deux ou vingt trois bëgg ko delloo gannaaw pour on ne quelle raison. Mm-hmm. te loolu nguur bi warul dox si lu ni mel. donc Bayale vraiment on est content pour lui pour Cheikh Oumar Diagne ak Abdou Karim Gueye on ose espérer que s'il ou trois libérés sur vingt neuf personnes li des bare na ñi des ñoo ëpp. Mm-hmm. Papito Kara Ousmane Diagne. Euh, Amidia. Amidia surtout Amidia Amidia surtout Amidia Amidia kii oh. euh, euh, nu mu tudd Fadilou Keita. Hmm. Diop Taïf. bare nañu ñoo xam ne dañ leen a téye Ousmane Sarr ak ñeneen ak ñeneen saway te dégel bi nii baax na mais gën na ñu nekk dans les conditions de construction nationale bi nga xam ni. Mhm. ñëpp dañuy nekk dox seen ay activités. librement di wax seen xalaat librement et puis Sénégal avancé mais coince les gens coince les gens coince ce régime là moom bii nii moom man dama xamul cat moo leen dugg xaw ma lan man daal di dugg nguur gi man jaaxal na ma coince coince yéen nag mën ngeen yaataa yumbe mais ñeneen ñi coince loolu du sotti. Mhm. donc dégel bi baax na ci nit ñi soufflé principe quoi. waaw mhm. mhm. alhamdulilah. Ajaratu euh, waaw li ba seen wax rek euh, sant yàlla sant mhm. yàlla nabu comme euh, libéré nañu ko oh. loolu lañu doon ñaan yàlla mhm. euh, ndax nag situation am tiitaloon na ñëpp mhm. donc alhamdulilah àlli daal paasan nañu ko suppal waaw nañu ko suppal supp yeel boo xamante ne da koy naan mu jaar ci yax yi ndax xam nga dafa toog lu yàgg te lekk supp yeel supp supp ganaar waaw kay bien épicé waaw kay eh ndax supp dañu ko bàyyi waaye suppu dafa baax ndax day day delloo yax palaasam waaw te dina tàngal biir bi nag ndax comme toog na bopp ba tey lekkul naanul Pape Alé naanal supp sama waa ji dañ la suppal supp bu neex nga lekk ba suur naan ba man di ñang mm. ndax nag wax dëgg yàlla ñun ngay lekk di naan moo ñu gënal lépp lu ñu mën a am ci sunu àdduna mm-hmm. yàlla sunu borom sàmm ko ñu sant yàlla bu baax gannaaw mm-hmm. euh, ñi mëne combat euh, mm-hmm. également yàlla def euh, ñu ñu génne ko ci foofu mu nekk mu am liberté sous contrôle judiciaire naam mais quand même la liberté de de mm -hmm. pouvoir manger de pouvoir boire euh, de pouvoir également bouger et faire ses activités mm -hmm. euh, donc euh, li Pa Assane wax itam mooy ne combat bi waruñu ko bàyyi parce que soi-disant Euh, Pape Al libéré nañu ko parce que liberté bi sax du liberté boo xamante ne dëgg-dëgg permettre na ko mu mu mu def lépp lu mu bëgg a def parce que dañu ko tënk mm-hmm. yoon nga ko tënk ba tey te mu ngi nekk sous contrôle judiciaire euh, donc dañu war a gën a xeex pour que mu mën a retrouver sa liberté totale euh, beneen bi ci topp mooy ñu xeex mm-hmm. pour que mu bañ a am benn journaliste boo xamante ne ni mm-hmm. itam dina dund li Pape Alé dund voilà loolu moom defe naa ne sañ-sañu kenn et c'est ça le voilà euh, journaliste yi du ñu mën a libre Euh, wax ci li nga xamante ne moom mooy seenub gis-gis ak seenub xalaat mhm. sans pour autant d'être inquiété dans ce pays là mhm. parce que ñu ngi ci année boo xamante ne euh, man je suis sûr que ça va être une année très mouvementée ndax année la bu ñuy waajal ay élections présidentielles et forcément li nga xam ne moom mooy analyse yi li nga xamante ne également xëy na mooy yenn gëstu yi euh, li nga xam ne moom mooy yenn expertise yi ci ci yenn plateau yi va falloir de pouvoir commenter li nga ne moom mooy les faits bi ci topp mooy libération Cheikh Oumar Diagne ak euh, Abdou Karim mi nga mhm. xam ne libéré nañu leen démb également ñu sant ci yàlla bu baax mhm. ndax nag kaso neexul te lu mu néew néew new itam tëdd nañu fa juróom benn weer mhm. donc euh, ñu mën a delluwaat seenub njaboot retrouver seenub famille ñi ci des nag ca nekk ci kaso gi itam nañu leen bàyyi ñu génn man pour man bu ñu bàyyee Cheikh Oumar Diagne euh, bàyyi Abdou Karim war nañoo mën a bàyyi ñeneen ñi ci topp ñëpp. Mhm. ñu bàyyi mhm. leen ñu delluwaat ci seen i kër mais surtout Amidia ndax Amidia da di jigéen te njabootam itam sonn na. te wax dëgg yàlla. Euh, place su jigéen rawatina Amidia nekkul ca foofu mu nekkee noonu. parce que man mm-hmm. ami li ma jaaxal ci ay mbiram mooy bi ñu ko tegee benn place ba tey dama gisul benn évolution ci wàllum enquête bi ñuy mënee ci ay mbiram maanaam mbiri Amidia dañ cee waxatul sax. Mm-hmm. que ça soit ci journaux yi on n'a pas d'information par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, situation bi mu nekkee. Mm-hmm. te on a besoin de savoir ci yan condition la nekk. parce que Pape Alé sax xanaa il a eu des journalistes. yoo xam ne am nañu taxawaay ak ñeneen ak ñeneen partout dans le monde ñoo xam ne taxaw nañu pour jàppale ko. xëy mm-hmm. na ce n'est pas le cas peut-être pour Amidia euh, et ça devrait être le cas pour moom ainsi que ñi nga xamante ne dañu leen tëj ci kaso bi pour que ñu mën leen a i kër mm-hmm. mm-hmm. bu ñu méritoo génn bu ñu méritoo génn laa wax ne parce que am na ñoo xamante ne nañu dugg ci kaso bi te kenn dugalu leen dëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi waaw wax dëgg yàlla ku sàcc ginaar na ak ku sàcc nen munta bokk àtte ak ku rey nit wala ku jaay trop du dëgg mm-hmm. ci loo xamante ne dafay indi loraange ci réew donc mm-hmm. nañu fexe daal ba climat politique bi ñu ko gën a mm-hmm. ñu euh, te itam Euh, luñ dee def ci wàllu yoon it ñuy bàyyi xel ni. Mhm. Euh, lu waay atte tey da nga ko atte ëllëg. donc loolu itam dañ ciy bàyyi xel ci sunu doxalin bu baax a baax. Mhm. donc Pape Alé la suppal nga lekk ba suur ñang delluwaat ci sa ay activité mhm. ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu jot a libéré ñeneen ñi ci des itam yal na leen yàlla gaaw a génne ci kaso gi ñu dugg. amiin amiin Madiaye mu ngi ñuy fàttali ni Abdou Karim Gueye a refusé de signer le contrôle judiciaire et il est convoqué de nouveau par le juge aujourd'hui euh, loolu ko topp ba ba. am ci lu ci gën leer comme ça ñu ñu ñu ñu ñu mën a xam fan lañuy ñuy mujjee ci dossier euh, Abdou Karim Gueye euh, Cheikh Omar Diagne ak euh, Pape ale ña alors dañuy dem ci sommaire du mercredi 11 janvier 2023 actualité la ñuy waxtaanee rapport Cour des comptes le FMI apprécie et attend vaillamment de voir doute sur les rapports entre le président et le premier ministre Amadou Ba va-t-il continuer ce projet après ça dinañu am la revue des titres ànd ceeg euh, Adjaratou Mami Sam tout de suite la régie suba xëy ñu dem revenir sur le plateau.